naafila guddik fukkeel ga ak juróom-ñaar ku ca julli fukki rakka ak ñaar rakka bu ne ginnaaw fatiha inna ansalnaahu ak xul huwallaahu ahad lu ci ne ñaari yoon des na ko ca bindal tuyaaba ju toll ni limu ka njëkk gëm yàlla ba ci ka mujj gëm su ko fekkoon mu tawat dana wér su amee woon bor it yàlla dana ko ko fayal bu nekkoon ci njàqare it des na wuññi njàqareem te des na ko musal ci sawara